bu neexee yàlla bu neexee yàlla ajjuma bii di ñëw muy 14 octobre 2016 bu ñu jëlee tisbaar ba pare bu neexee yàlla daañu def marche boo xam ne nii marche jàmm la xam ngeen ne Sénégal yoon def ñu may ñu marché moo tax marche bi nekk marche jàmm marche bi nekk nag marche pour démocratie marche pour liberté yi marche aussi pour aar alalu Sénégal loolu moo tax bu neexee yàlla bu 15 heures jotee ajjuma 14 octobre daañu départ suñu marche ci RTS jaar avenue Malick Sy jaar avenue Blaise Diagne jaar avenue Jean Jaurès ba egg si buntu ministère de l'intérieur ñu profité ci occasion bi pour lancer un appel à tous nos compatriotes pour que ñu ñëpp ñu dox doxu jàmm ci biir réew mi ak ci bitim réew mi pour xeex li nga xam ne ni moom lañu bëgg mooy Sénégal am jàmm Sénégal am démocratie ba pare lii nga xam ne ni mooy alalu réew mi ñu mën ko aar coowal pétrole ak gaz lëmbaaje na réew mi. li tax mu lëmbaaje ko mooy gouvernement bi lañ koy laaj ba tey ji tontu ci dégg ngeen bi coow li commencé directeurs yi ñoo commencé wax la ñu wax doyul ministre ne dañuy wax la wax doyul premier ministre jël parole ni directeur li ñuy wax doyul ministre li ñuy wax doyul moom premier ministre day wax ba pare nag ne ñu bu ci kenn waxatee ah ma lu ma def. ñu ne ko nag Sénégal du réew moo xam ne nii dañuy accepter ñu ñuy menacer moo tax ñu ne ko menaces yooyu sax ngelaw la terewul dañ cee wax la ñu ci wax nag leer na naññ ñun ŋaañuñu kenn xasuñu kenn dañu ne lan la famille yu président bi di def ci pétrole Sénégal ak gaz loolu dañu wax dañu laaj ñu tontuñu ci dañu ne aussi ndax gouvernement bi li waroon def. pour défendre intérêt Sénégal maanaam njëriñu réew mi ndaxte pétrole bi ak gaz dafa am solo pour ëllëgu Sénégal ndax gouvernement bi la mu waroon def def na ko ñaari question yooyu la ñu laaj te ba tey ji amuñu réponse ñu yaakaar na nag bu directeur yi waxee leerul ministre yi wax leerul ba premier ministre wax leerul ki nga xam ne nii mooy président de la ñun moom la ñuy interpellé mu tontu ñu ci lii nga xam ne moom la ñuy laaj waaye li am solo mooy ñun Sénégal la ñuy xeexal Sénégal la ñuy défendre Sénégal la ñuy aar te kenn mënul tere nag réew mi nga xam ne ñoo ko bokk ku ci nekk ñun du sonn ndax Sénégal li ñu war def pour Sénégal ñu def ko. loolu moo tax bu neexee yàlla le 14 octobre li ñu lu yoon may lañu laaj si te la ñu lu yoon may dañu ñu nangu nag kenn foqar ci ko ku ko bëgg a foqar ci nag daañu jàkkaarloo ak yow.